waaw tariqatu tijaaniya mooy lan njëkk tariqa buñ ko waxee yoon lay tekki yoon bu nekk am na fu mu war a yóbbu ka ca tegu shariatul islaamiya sharia yoon la addiin diinul islaam yi buñ ko waxee diin yoon la kon tariqa buñ ko waxee yoon la waaye yoon la bu yaatoowul ni yoonu sharia ku bëgg a tegu ci yoon wu yaatu nag te amuloo ko la gindi mun nga am na ngay jàddantoo ci diggu yoon wa mun na yéexal sax gi yegg boroom tariqa yi ci leen jël yoon wu gën a ndaw gën a jub te ànd ak ñoo cay wommate di yóbbu ci yàlla cheikhuna ahmad tijaani yoon bi mu xàll pour ku àndoog moom ci yoon bi mu yóbbu la ci kennug yàlla ndigal la mu ngi ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndigal nag ca la leer ca la barke nekk alhamdulilahi ba nga xamee ne ndigal la neex naa layal lépp a ci alxuraan lépp a ngi ci hadis yi tudd yàlla lañ doon waxtaanee tudd yàlla bokk na ci yi ca gën wax nañ ko mooy astaghfirullah astaghfirullah nga wax ko téeméer téeméer bi fu mu jógee yonent bi sallallahu alayhi nee na moom dana ballu yàlla téeméeri yoon ci bis bu nekk kon ñu am astaghfirullah di ko wax téeméeri yoon tudd yàlla bi yàlla wax ne nañ ko baril ak salaatu ala nabi bi mu wax ne nañ ko baril danañ def astafurlaa ma ne téeméer salaatu ala nabi téeméeri yoon laa ilaha illallah téeméeri yoon suba ñu def ko ngoon ñu def ko bukratan wa asila lay yang ci alxuraan bari na lii mooy tarixa tijaan Cheikh na Ahmad Tijaan yoonam bii mu tuddee tarixa ñu koy askanee ci moom mi ko sos di tijaan moo tax ñu ne tariqatu ya yoon boobu nag ma ay santaaneem du lu dul yàlla suba ngoon taqoo ak di tudd yàlla di julli ci yonent bi lan mooy farataam nag bu ñu ko waxee farata mooy lislaam li lislaam santaane mooy farata ci biir lislaam lañ mën a wax lii farata la kon ci biir tarixa duñ mën a wax ni lii farata la lii ngëneel la rek la ñuy mën a wax waaye nag alhamdulilah ba nga xamee ne tudd yàlla farata la ci alquran kon bu ñëwee ci tarixa ba itam boo laajee luy faratay tarixa bi mun nañ la wax ne mooy tudd yàlla waaye lan mooy farata ya ñu bëgg laa limal ne yéeg yee la ma ne doo ko déggee noonu ci biir tarixa tarixa daal topp ko ngënee la ca mën ngaa wax ne sunna la waaye luñ ca mën a tànn ne mooy farata ya mooy sunna ya ci biir tarixa lislaam lee ay farataam lee ay sunnaam loolu nekkul ci ku bëgg daal sa xol leer bari la tudd yàlla suba ngoon yow mi nekk tarixati yaan yàlla baaxe na la ko boo ca nekkee xamal ni yaa ngi ci lu gërëm loo yàlla te dina la may nga sëy ci baatu laa ilaha illallah bi ni ñu ko doon waxee léegi. La deuxième question